الله واتقوا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله مستحق الحمد وحق له أن يحمد الواحد الأحد المعبود ليس لغيره أن يعبد أوجد الموجودات من العدم على غير مثال يعقد تقدس سبحانه وتعالى في جلاله عما نعم، لا يليق لكماله والصلاة والسلام على أشرف الموجودات سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيها المشاهدون الكرام أيها الإخوة في الله سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi ñu دي leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd di ziyaara nag di ndokkeel kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp di ci jiital Serigne Babacar Sy ibnu Cheikh Al Hadj Mansour Al Khalifa di ziyaara itam waa kër Thierno Muntaga Omar yëpp waaye itam ziyaara Ndiassane layén Andoulaye Canaba di ziyaara itam Serigne Muntaqa Bachir ak mbooloom rek xalif bu nekk ci réew mi ñu ziyaara di la ndokkeel dina tàllal sunu loxoy xol mbokk yi al islah ni ngeen ko xamee aljuma bu nekk mu ñëw ànd ko ak yéen ci seen télévision bu mag bile di ITV waaye ànd ci ak boroomi xam-xam ñu jël lenn ci tomb yi nu ñeel ci réew mi ñu waxtaane ko sunu magi réew waaye rawatina lépp rek lu concerné diine ak ku ko mën a taxawee ak fu mën a ne waaye loola ñu jël ko def ci aw taxaw seetlu ni ki mu nekk ak fàttali ndax fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin dégg léegi nag tey ma am imaam abdourahman ba ma am ko sama ndeyjoor waaye itam ak sama turandoo cheikh alhaj malik ndaw tey nag ñuy war a waxtaane جهاد الجهاد آه، في سبيل الله لولا ورنك لولا ني وقتاني اكو ما يتعلق به آه، دينانتي نك واخ ايتام جيم آه، جو تاد دي تفسير ما بجاخو موميت ليغي بو ري بومو تيا ديف اك يو اديو ان شاء الله دامي باي سما انفيتي نيو ني تابي تي وقتاني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله عليكم Mm-hmm. as mbay ñu lay nuyu di la ziar. Mm-hmm. di la delloo liyo bi yëpp. di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal yàlla nangul ñu jotaay bi. amiin na ko yàlla def muy yiw. Mm-hmm. Eh, te nangul ñu ko tasaare ko ci gox àdd bi yëpp. di nuyu ñi ma àndal sama eh, invité Hadj Mali Ndaw. Maodo sëñ Daara. ak eh, sëñ Omar. ak Omar Omar Omar ak sëñ Modou Gueye. ñu xam ni ñooy. waa ahlul nabi sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. di ko di ko bak fuñu fuñu fuñ fuñ fuñ toll mhm. maa ngi leen di nuyu di leen dalal di ànd ñoom ci eh, jotaay bu tedd bi mhm. aywa macha allah nuyu leen dalal leen moom Cheikh El Hadj ak ñi mu ko àndal sëñ Omar ak مودوس محمد أيوة لقي خبنا يوم لأنه ليه مل جتاي بي نتابع كي وقتها إن شاء الله السلام عليكم يا شيخ الحاج مالي يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا برد أغلى يا أكرم الكرماء يا ألطف اللطف يا برد حج مالك يا كاسف الداء والأسوى وأدراري مفيد أبحري عن يا حج مالك يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء التف اللطفا يا برد سيدي حاج مالك نبي الاختيار كما قد سأجل إله موتا جاء يسأل يا ماني سارة هدي مالكنا يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألتف اللطفاء يا برد أكرم يا الله يا ربنا هفر زلتنا يا يا أكرم الكرما يا أرحم الرحما يا ألطف اللطفا يا برد أكرم يا ألطف اللطفا يا برد أجمالك وداء يا ربي أدناني وأدنفني أجل خاصتنا يا خالق حج مالكنا يا أكرم الكون بماعي عفوك أرجو أصل أخساري يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف التف اللطفا يا برد أخبار إني فقير ومسكين مسكين ومنقصير محتاج خيرك في في تيسير أوتار يا أكرم الكرماء يا أرحم الرؤماء يا التفلت توفني مسلما في ردي أبرار يا أكرم الكرماء يا أرحم الرؤماء يا ألتف اللطفاء يا برد أخرام حبل إلهي يا ربي توبة كاملة ميت من حيبتي في تيه أختار يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألتف اللطفاء يا برد سلطماني فاستر هناك كما في زماء بنا الله يا ربي زازنا الحاج مالك ني والعلي وسعبي أحماري غفاتي مدنا سبيلهم سلموا ربي من أبرار يا يا ربي زازني عن النار يا الله يا ربي زازنا عن النار لم يسيا إلا صلاة على نبي محمد إني خديم محمد وعبيد حسبي بأن أدعى خديم محمد ميسرا إلا صلاة على سوى إلا صلاة على نبي معاذ ينبي يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى بجاه محمد يا رسول الله يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى بجاه محمد فتبارك الله فتبارك الله Cheikh El Hadj Malick bégal nga nu ci sa turandoo li mu wax ci sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla def yiw sotti ko ci àddina bi yëpp moom Cheikh El Hadj Malick kàddoom yooyu nga xam ni dafay bégal nit te day dugg ci xol rawati na sax bo xamé lam ci wax maa ngi ciy ziyaar nag bu baax wa daara ji euh serigne mam Abdoul Aziz bu sëriñ Babacar Sy ibnu al Alhaji Abdoul Aziz way maa ngi ciy ziyaar sëriñ Moustapha Sy bu sëriñ Babacar Sy ibnu al Alhaji Abdoul Aziz way tam di ci ziar Petit Pape mom mi nga xamni takusanu tàkkusaanu Seydina bi mi def samedi la insha allah muy suba كيف ku soxla maam Abdoul Aziz bu sëriñ Babacar Sy Abdou dinga ko fa fekk waaye borom xam-xam bu mag boobu nga xam ni moo koy waxtaane di Sidi Mbaye oustaz Sidi Mbaye ñi ngi koy réclamé waat fii dina ñëw incha allah eh, mbokk yi ñi ngi ziyaaraat ñëpp <coughs> ndokkeel ñëpp rawatina ci àjjuma ji <coughs> xam naa nekk dañuy dugg ci eh, jihaad Maba Jaxu bëgg naa ko waxtaane waaye foog ma jaar ci jihaad déglu sama soppe sama xarit imam abdurrahman Ba su ma la doon laaj jihaat ci boppam lu ko sababam ak mooy lan loo may wax. Alhaji Malick ñu ngi lay nuyu di la delloo nuyoo. di nuyu Alhaji Malick Maodo. sëñ Daara. macha allah waaye am na solo lool. defal delloo seen nañu guddi àjjuma. wallaay ndeysaan di salaatu ala nabi. wallaay ak yaa akramal kurama bi nga xam ne tawxi tawasulaat bi góor gi xam nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. bokk na ci garanti yu mu jox mhm. nañu da leen bëri di julli ci man di ci yeneen ci guddi rawat na guddi aljuma mhm. ak bisu aljuma bi ak oh. guddi altine ak bisu altine bi parce que yooyu salaat yooyu yuñ may gaaral la jaamu yàlla yi nga xam ne ind amul indirect directement la nga xam boo ko defee yàlla da koy jot ci saas yi sa digg ak na mooy gis bëri looy def salaatu ala bi ci guddi ajjuma mm-hmm. wala bés wala bëccëgu ajjuma wala bis wala guddi altine mm-hmm. wala bésu bi mm-hmm. kon eh, ci barke altine bi ajjuma bi ñu nekk waxtu yoor yoor wi wallaay ah, yal na yàlla nangu tawasulaat nangu salaat nabi aj ma laaj nga ma loo xam ne lu am solo muy jiyaat jiyaat eh, eh, izun la la boo xam ne bàyyi koo suñu borom subhanahu wa taala waye buñu ko jangate ci bir usne bi yonent bi alayhi salatu wassalam ya xamne mo wax ak suñu borom mo ñu firi lan moy jaat mom sallallahu alayhi wa sallam yonent mo ñu firi jaat gannaaw bi yàlla waxe muy yahu alquran ci bir aya alquran yàlla waccel ñu aya nan uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu ala ala ala ala wala nas ala ala nasrihim ala nasri la qadirun ala nasrihim la qadirun yàlla suñu borom moo digal lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allah ala nasrihim la qadirun la qadirin yàlla suñu borom moo digal yonente bi alayhi salaatu wasalaam pour te lu lu njëkk loolu am na mandarga yu taxawoon yoo xam ne yonent bi salaahu salaam ko gis am na benn saxaaba bu ko musa laaj ci benn benn xeet na ko xeet sàngam day bëggoon naa faa tab bi jëflante ak ñoom ngir seen seen seen jikko yonent bi ne joxaguñ ma ndigal allahu akbar léegi daan nañ gis yoo xam ni yu jar taxaw la mhm. pour ñu mën a jël seen responsabilité pour mën a euh, taxaw jaamaalu ñëw waaye bu ñëwee yonent bi ne joxagul ma ndigal mhm. ba yàlla suñu borom subhanahu wa ñu génnee yonent bi ci màkkatal mu koram mhm. gannaaw ba mu fa saxee ci at yam fa sax jiima asrata aman fi xurayji sawa euh, ba ñu génnee ko moom alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi am lu leen métti ba Seydina Aboubacar am na lu mu ca wax mhm. koroog ba mu yégée ni génne la yonent bi la ne ah comme yonent bi génn moom xeex dana mos a am mhm. xeex dana yàlla dana mhm. a am ci la yàlla subhaanahu doog koo digga nag ne ko nag mbéjum kanam borom a koy fajal boppam mm. waaye loolu loolu rek taxul ju jiyaat mais jiyaat dafa jugoon pour jox nit liberté mm. ndekete nit ki mën a am liberté boppam dox li mu bëgg a dox. Mhm. dem fi mu war a dem bokk fi mu war a bokk. Mhm. loolu bokkoon na ci taxoon a jot jihaad. kon su ma la déggee imaam du mhm. rek. bëgg a xeex xeex. wala war a xeex waaye izna la buy jóge ci yàlla. te laata izna bee ñëw muy ndigal li. fekk na tooñ ko jiitu. tooñ ko yaatu. yaatu. léegi nag kon tuddul songu mais riposte la tuddoon. Mm, mm, mm. Mm-hmm. riposte la riposte la tuddoon maanaam tooñ moo ko. jiitu moo ko moo ko moo ko jiitu. li ma zolimu li ma li ma àndawum zolimu. zolimu bon moo tax tooñam na leen. Mm-hmm. moo tax yàlla ni kon défense leen seen bopp. Mm-hmm. ngeen taxaw jaamaarloog ñi nga xam ñoo leen tooñ. mooy ñi nga xam ñoo fi ñëw tey. te ñoom ñoo njëkk a tooñ. ñun tooñee mooy dañoo ñëw ci suufu jàmbur. di dund ci suufu jàmbur. di mhm. tiim asamaanu jàmbur. Mhm. te la borom ba jàmbur la borom suuf saak asamaan si ñu nekkuñ ca. allahu akbar dañu nekk ci suufu jàmbur. Mhm. samp seen i xërëm. te kóllëre bi ñu waxoon ak yàlla subhaanahu wa taala. alastu bi rabbikum ñu no balee dañ mu ñëw dañ ko sànni. ñëw indi seen i awsaan tëgg seen i xërëm ci suufu jàmbur koo xam ne daf leen noonu ndax du seen borom ñu ne ankay ah mu def leen ci seen diggal bàyyi seen ruux mu nday génnee leen nampatal leen leer yonent bi alayhi salaatu salaam bañ génn seen biiru yaay ñu waroon a tepp ne liimaan boobu mun koo sotti ñu ñëw jaar ci beneen yoon kon ñu ngi ci toon boo nekkee ci biir kër jàmbur di lekk ci lekkam dund ci dépassam di la def ci defam te la borom ga nekk bëggoo ca yaa nga mu dëppoo ko xadis bi sallallahu alayhi wasallam wax ni mhm. yàlla suñ borom nee na mhm. bu nu nekkee ci suufam mhm. taxaw ci asamaanam tiim nu te bàyyiwunu tooñ ñoo ngi koy bokkaale ñu koy bokkaale ak di ko utal ak dend nanu génn ci suufam ak asamaan ut beneen suufa asamaan du yomb de loolu du yomb du yomb nag <laughs> loolu du yomb comme loolu du yomb nag ya moo tax yàlla subhaanahu digal sangam bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam naka na na jiyaata ak ñoom te lu jiitu loolu yonent bi alayhi salaam dem na ci penc yi waar leen woo leen maslaha maslaha ak ñoom yaatal woo leen ci diina ji wa bi xaylihi wa bi xaylihi jalabal wara loolu wali man ajaabu na xeyru maraami wa bi xaylihi wa bi xayrihi جل بالورى

wa bi xaylihi wa bi xaylihi jalabal wara ndeysaan wali man ajaaboo naylu xeyru maraami loolu sa turundoo wax si mu ne ci gàddu gim gàddu jaasi mhm. woo ci kalimatu laa ilaha illallah ñu mhm. fekk ci ko ci lislaam bi mhm. ak moral jikkoom ji tedd ji rafetam ba ak ihsaanam ba Mm-hmm. ak woote ga ak jëflante ak ñoom jëflante ko rafet boobu mm-hmm. jalabal waraa ci la womatee mbindeef yëpp mm-hmm. bijji leen womat leen jëme leen ci diine diine diine di nga mooy gën ci dëppuwaay am na ñoo xam ne ci jikkoom ak doxalinam bu rafet ko toppee ak intelligence am ci la leen indee ci diine am ñoo xam nag seen féeteerlu ak dëgër bopp rocc na jaase janoog ñoom est-ce que te loolu mooy mm. mooy mooy mooy mooy aslu jihaad ku mm. mës a taal jihaad ci taarix mm. ñu mën ko xam loolu mooy asloom tëbul tëb rek taal jiyaat am mm. cause bi waral loolu ñu gis ni lii ni ñaa ngi koy def. ñu ngi koy def méttal ci kaw jullit yi. wala ñu ngi sànq ñu ngi sànq sànq àqu yàlla. wala ñu ngi dérapé ci lislaam dérapé boo xam ni. kooka tombé jamono jooju ci l'histoire bu ñu ci ñoom. mu jëflante ak ñoom ci wax ak ñoom ci bind leen lettre waar leen. ñu lànk mu doog a taxaw jàmmaarloo ñoom. ci histoire li li li l'islam. kon avant jaasee génn. avant jaasee moral moo jiitu moral moo jiitu. Mhm. moral moo jiitu loolu lépp dafay wane civilisation. islam ba jugul. Mhm. parce yàlla subhaanahu wa taala moo ñu gën a bëgg nit ñi même parce que alxalqu kullu min alullah xataa yéeféer yi njaboot suñu borom lan wallaahi te kenn amul yéene jël teg sa njaboot di ko rey te sax même ci màkka aaya yi fa wàcc yëpp yàlla yaa ayyuhan naas la yaa ayyuhan naas la waaw dënd bu yaatu dënd bu yaatu dënd bu yaatu ah? loolu lépp loolu lépp nag day wone ni yàlla subhanahu wa taala kon dafa dem na ba xam ne ñii mhm. lay seen lay seen lay lay seen womat bi leen mën a jël mooy mhm. foog ñu gàddu jaasi moo leen moo leen di mën a indi moo leen di mën a delloo si waat ñu mën a nekk al insaani dëgg-dëgg bu mën a mm-hmm. taxaw seen seen mm-hmm. mais yàlla songuloowu leen pour noonu leen wala yàq leen déedéet parce ñoom ay jaamu yàlla lañ yéeféer yi sax jaamu yàlla lañ mm-hmm. parce ba alquran de wa abdan Mm-hmm. ñu nangu ci jaam bi nangu nangu jaam mm-hmm. waaye nag mu ndeef yëpp jaamu yàlla la xataa kii gëmul yàlla mm-hmm. nekk ci jaamu yàlla leneen loolu suñu borom subhanahu wa taala kooku jaamu yàlla jaam bu ñàkk nangul yàlla la ak jaam bi nangul borom bi subhanahu wa taala ñoom jaamu yàlla la kon te yàlla subhanahu wa moo moo ñu gën a bëgg mbindeef yi parce que moom moo ko créé mooy mm-hmm. albadia mm-hmm. moo leen bind moo leen moom moo leen di wërsëgal liñ mm-hmm. ah, ko ñàkk ñàkk a topp mu jox leen wërsëg jox leen li ñu bëgg jox leen naan ba léeg-léeg sax ñu ëppale ko sax jullit yi nga xam ñoo koy topp kon bañu leen mais dafa am lu mu leen bëggal parce que bi leen bindee jox leen xel jox leen indi xam-xam teg mu indi yoon udoo ila sabili rabbika bil hikma wal mawizati al hasan loolu moo jiitu bu loolu am ba nga xam ne solution boobu jàllul ñoon tàbbiwuñ ci mu doogee indi solution lan mooy lan mooy lan lan mooy jihaad moo tax bu ñu jàngatee loolu moo tax loolu alladina uxriju min diyaarihim bi xayri alxaq illa an yaqulu rabbuna maanaam ñi nga ba ñi nga xam nañ lay jaata ñi nga xam génne na leen seen i kër comme ne da daal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu génne ko Makka ci génne goo xam ne bi xëyral xaq na ko la ak not ko mu ne daal ne bu leen denc xeex ak ñoom jàmmaarlo ak ñoom ba am seen liberté ñoom mi am seen liberté illa an yaqulu rabbuna allah ba ñu wax ni bañ bañ bañ wax ni yàlla mooy seen borom subhanahu wa taala mm-hmm. loolu nag euh, bu ko bu ko bu ko borom xam-xam yi jàngate mm-hmm. mooy da yu'tabaru al jihad min furuu diini wujubu saabitun bi darura ad diiniya ah inda jamii al muslimin loolu nag liñ ci nam mooy maanaam danañ ci jëlee balance diin maanaam balance banqaasu diine saxu warug jihaad war gu mu daruraat bu mu nekk goo xam ni lor ñëw na ci kaw nga war a mën a taxaw pour défendre roñ lor boobu ci lor dañal ko tamit ci mboolem jullit yi nga xam ni ñoom la lor tew seen kaw loolu mooy mooy mooy asliyan ci ci cosaanu jaan maanaam maxuusun min basli juuri maanaam bu fekkee luxatan nag mooy moo xam luy luy làmboo ak coona la maxuusun min basli juuri maanaam loo xam ni li ko islaax yéen firee jiyaat mooy Euh, baslu lu jóodi mhm. lu am coono xam nga gàddu bàyyi sa kër bàyyi say njaboot mhm. jox sa jaas yi mhm. dem yor sa xare yor sa xeej mu leer na ni yow mën nga di mën nga del si mënoo bañ a del si kon loolu coono mënu koo mënu mënu koo kii léegi nag bu ñun ko séddalee nag moom ala salaasati aqwaam moom jihaad am na jihaadu nafs wa jihaadu shaytaan wa jihaadu adul al jihaad moo tax wa salaam waxoon ni jóge nañ ci jihaad ju mag bu ndaw ji ñu ngi jëm ci jihaad ju mag ji allahu akbar te ñun li ñu yaakaar jaaju mag ji mooy gàddu jaasi jaaju kon su ma la déggee su ma la déggee islam bi mu ñëwee uh-huh. eh, dafay eh, yàlla mi bind dend bi uh-huh. indi fi ay jaamam uh-huh. dafa am lu mu bëggoon ci ñoom mooy kenn ku nekk fastaqim kama umirte lim la digal hmm. nga nekk ca tamooy mooy hmm. topp hmm. ko yërëm jaami yàlla yi wommatu ci santaane yàlla yi waaye bàyyi ay tereem léegi nag gannaaw loolu pénc mi mënuñu ko doxal ñenn ñi not nag ñenn ñi ci lu dul ndigalu yàlla di leen imposer doole waaye itam teg ko ci weddi léegi nag bu boobaa ki yàlla yónni ci ñoom mu ñëw ci bil xikma Euh, muy sagesse ak tam ci njàngale bu leer ëmbuk laabir kooka ñëw ni leen ah yàllaa ma yónni wàcc leen neen mm-hmm. ak i tooñ mm-hmm. te taxaw ci njub mm-hmm. léegi nag buñ fettirloo lànk léegi nag ci la war a taal xare janoog ñoom euh, ànd ak loolu lépp bi mu taalee xare janoog ñoom ba mu jeexit am na fu ko yàlla ni mën na fi yem yaa ayyuhal kaafiruun laa abudu maa taabuduun mhm. waaye wala antum aabiduuna maa abud wala ana mhm. aabidun maa abadtum mhm. wala antum aussi aabiduuna maa abud kon nag am na lu war a am mooy lakum diinukum waliya diin gannaaw yéeféer yi du ñu jaamu mukk laa abudu maa taabuduun li ngeen di jaam wala abudu maa taabuduun ñoom it duñ ñëw jaamu li ngeen te ñoomi duñu deñ ñëw fekk ci ñu nit duñ leen fekk kon nak amna na lu penc mi laaj moy ñu daldi taxaw benno kenn ku ne li diine islam nga xamni moy diine jullit ñi taxaw ci dëggal ko doxal ko ñi gëm leneen fittir lu ci tam ñu seetaan leen wa ëllëg parce que foofu dooni lakum diinukum waliya diin taxaw leen seen diine ndax inna diina inda allahi islam imam suñu genné fofu kon mu melni buntu jihad tëj won waaw foofu la sama laaj di duggee. waaw Alaaji Malick foofu loolu foofu foofu am na mais loolu première étape la. première étape. la comme dina ko wala dina loolu première étape la. waaw deuxième bi mooy deuxième étape mooy jaahidil kuffaar wal munaafiqiin wal munaafiqiin waghluz alayhim wa ma'waahum jahannama bi'sal masiir mais mais lakum diinukum wala diin loolu première étape la ñuy doog a tàmbali l'islam ñu bàyyi leen ci loolu. moo xam ni waar leen. wax leen loolu première étape la mais nag. bu fekkoon loolu fa la yem. waaw gannaaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam jiyaat am parce que aaya bu bi muy wàcc yonent takk nañ ay xare. Mhm. Seydina Abubakar Seydina Omar takk nañ takk nañ ay xare xare. Mhm. jiyaat ba dem ci saaba yi am ñu jaatu ba yegg si mhm. Sénégal fii suñu mag ñi. ah dinañ bu fekkoon ni kon euh, lakum diinu ko wala diin foofu la ba léegi mu ngi kon ñoom duñ tàbbi ci loolu. waaye loolu ah. première étape la. moo tax moo tax Alquran. Mhm. boo dee boo jàng alxuraan ñu indi naasi ak mansuux ak mansuux ah, mansuux mhm. aaya bii day ñëw voilà suuxal bi wala bii ñëw firi bi voilà wala bii maa ngi ñëw fi may laajee foofu mooy mhm. dama bëgg a wax ni xam nga bële dañu jug takk xare jàmmaarloo fii nag comme euh, ouverture d'esprit am na maanaam tey nga toog sañ nekk ci ko kii nekk ci lele moom gëmut léegi kon pour nga fekki ko. Mhm. ba ngeen jàmmaarloo day fekk tooñ juddu. tooñ juddu ah, waaw parce que bu tooñ amul rek. Mhm. kenn ku ne mën na sax ci lim ne ñu xaar ëllëg. jaahidil kufaar wal munaafiqiin waghluz alayhim wa ma'waahum jahannam mhm. kon su jahannam amee rek. kon am na benn stand by bu ñuy bàyyi. kenn ku ne ne ci lim war a de léegi foofu. Ah. Eh, mu am beneen jihaad. muy jihaadu nafs. mu mel ni sallallahu alayhi wa sallam dem na ba ni comme nag jihaat yi moom rocc jaasi tuur deret xare lakki ka dàq ñi jàppi jaam am na benn waaye bu neex bu ma laaj bërki dem ni ma waa ndax euh, jaam amat euh, ma ni ko jaam nag existé tul ndax xare amatul mu ni moom daal foog mu am jaam man ko taalal xare <laughs> da moom ma déglu ko ba yàgg ma ne ko sëñ bi yow est ce waxoo jéebéer mun ma walaa jaam bu jigéen laay wax <laughs> dégg nga léegi comme jihaatu nafs nag ñëw mhm. xam nga loolu yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam muy deuxième phase mm-hmm. te jihaadu nafs mu ni nag moo gën a metti mm-hmm. ndax loolu mooy lii tàggat nit dëgg mm-hmm. mu janoog boroomam mooy too lor moroomam aj Malick maa ngi ñëw ci sa sa sa jihaadu nafs boobu euh, jihaad boo gisee loolu am mhm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, wax jàngale mhm. ne jihaat du mës a ci àdduna du jeex du jeex parce que feek tooñ a ngi am jihaat di am jihaat di am te mboolem ñi nga xam ni ñoo samp jihaat mhm. ku ci nekk cause ba tànk jihaat am na lu ko waral am na am na ko mm. waral jamonoy toll nag ne dana toll foo xam ni borom ndigal moo koy sañ yàlla may ndigal nga am ndigalu borom bi subhaanahu wa taala nga xam ni boobaa yow da nga yàlla ndigalu borom nga ciy demee mais nit ak nit toll ci jamono gis nit nekk ci loolu te kii woo nga dal ci kawam war nga ko war war nga ko bàyyi am na beneen yoon bu la bu la mën a jaarale boo xam ni moo gën ay te nga attaque ko parce am na mag ñoo xam ne ñëw nan fi liggéey liggéey bu sell tàggat nit ñi yar mm-hmm. leen jàngat leen te laaluñ jaasi mm-hmm. waaye ñoom jàngat nañ jamono ba xam ne jamono ji laajatul yëkkati jaasi yëkkati jaasi songe yëkkati jaas donte ba bu ko laajee <laughs> même bu ko laajee sax mais jaasi foofu eh, def moraliser jàngale xam-xam mm-hmm. yee nit ñi moo ëpp doole foofu parce que jàngal nit ay yee ñu bokkul te ki nga yee rek dimbal nga ko ah. kon jàngal nit ak yee ko du ko benn du bokk nit mën na jàng nit mën na jàng ba jeexal téere fekk yeewut waaw ba sa waxkat bi nee na ki nga jàngal ba mu fees del te yeewoo ko mm-hmm. yaa ko tooñ parce que alali borom barke li mu xam yëpp day topp am ponkal rek di yëgay yëgay di ko jëriñ yée nag ñoom nag ñoom nag jamono ji ñoom toll li ay ay saxaaba ay ay taabi ay taabi taabi mm-hmm, ba ci mm-hmm, ulama mm-hmm. borom xam-xam ba mag ñi jamono buñ tombee rek dañuy dañuy xool càmbat jamono ji ak fa fa ñu mën fa leen exercice fi ñu mën a jaar pour mën a dimbale nit ñi ñoom ak fi nit ñi toll est-ce que foofu laaj na ñoom ñu yëkkati ñu yëkkati jaas parce que mu fekkee mu fekkee ñu ngi seqal deuxième loolu loolu loolu moo ko waral mais mais jëmmi euh, xukumu jihaad atte bi ba léegi mu ñu agise fekk li nga xam ni ña ña jiyaatoon ña jiyaatoon taxoon ñu jaat fekk loolu mu ñu am maanaam xukum bi mu ngi sax mu ngi wàcc parce aay boobu kenn fool yi woon mmh. wala léegi nag kii kii war a ñëw war ko def mmh. ci kooku lay aju ah ndax moom defloo nañ ko ko am déet. voilà ndax moom moom ci moom moom deflu ko parce que moom it war na natt jamono ji mu toom la ak nit ko parce que jaat du kenn nit ak ñi ko àndal. Mm-hmm. ak ñi ngi ko na maa ngi mës na junj ne Seydi Hadj Malick. radiallahu taala anhu mag ñi dañu ko dañu bëri ko doon Maodo yaa doon si alxaaji Omar taaloo jiyaat <laughs> mu leen di tànk xam lu rek. Mm-hmm. nee na ba benn bis taw bi am. muy taw taw bu bu métti taw bu métti ah. gars yi jàkk yi mu bëri julli si wun waaw ah. moo tax neen ah kuy daw kuy daw tox ki ndox waaw ah. bëgg bëgg laa indi taali taali safaraat ay ay ay kawi jaas yëpp yëpp seytaane mën na ci mm-hmm. laxasu sax mm-hmm. mën na laxasu saw fekk na la sa bor xam-xam bi sa nit ñi mm-hmm. sa mbooloo mi nit ñi taalal jaate fekk na seytaane te fekk na boobu yow nattaloo ki nga war a seqal kan ba xam yéen a tolloo niveau wala déet wala moo sut Mm-hmm. sut goo xam ni mm-hmm. bu lee bu lee boo boo boo jaamaarloo ñoom ñu ñu faagaagal la faagaagal say gars yi yàq sa mm-hmm. métier yàq sa liggéey te amaana mënoon ngaa jaar ba jaar fi nga jàll ba ba réussir ba réussir te fekk ne doo doo doo doo tàbbi ci loolu waaw mais eh, imam euh, pour ñu gagner ak temps bi euh, mu mel ni bëggoon naa sax tudd nga léegi ni jigaat am na gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yëpp yooya xam naa ni dama koy laf pour accéder ci sama question bu bi bi tax jataay bi daanaka am. Mhm. muy Maba Jaxu Ba. tafsir Maba Jaxu tafsir Maba Jaxu moom mooy kan ba noppi. ah tafsir Maba Jaxu ci tënk ci tënk tënk tënk fële maanaam eh, eh, ci li nga doon ma leeral tuuti ci nga doon leer ci jaadu nafsi mhm. doo ko dugg ci jàmbaar jo tafsir Maba Jaxu boo gisee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne. jiyaat mhm. jii gàddu jaasi mooy jiyaat ji ndaw ji. ji jiyaadu nafs. mooy jiyaat ju mag ji. mooy jiyaat joo xam da du jeex. du jeex jihaatu nafs du jeex waaw moo tax xaal kaw ni maanaam xam nga jihaatu as bi sayfi mhm. kooku am na sax am na weer yoo xam sax kenn du ci jihaat mhm. ah waaw ah. ah, asulul xurum mhm. ah du du du vingt quatre heures yëpp ngay jihaat ak tam booy jihaat it am na ah, am na heure am na am na heure boo koy def am na waxtu yoo koy def am na sax bis am na weer yoo koy def hmm? jihaatu nafs nag tout la jour la tout moo la woon jamono bu na même booy nelaw da jihaat yaa ngi sa bakkan waaw boo yeewoo yaa ngi sa bakkan boo toogee boo tëddee boo yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu loo taxoo moom la loo xam du jeex mm-hmm. du jeex mm-hmm. Ah? Mm-hmm. moo tax yonent bi alayhi salaam tuddee ko jihaad ju mag ji parce que loolu moo moo naqare mu bakkan xeex ak bakkan moo gën a moo gën a métti xeex ak noonu jaamaarloo ko ci yoon jaamaarloo ko ci jaasi parce que bakkan bi dafa dafa am lu mu laaj nga war ko koo jox war ko koo xañ léegi nag bu fekkee xañ li nga war a jox joxoo ko ko xañ ko ko léegi loolu mën na la jural yor loraange mm. boo ko joxee loolu loo ko war a def moo tax loolu mooy akbaru jihaad ci li ma doon leeral ci loolu waaw waaw waaw li tax ma tëb loolu mooy xam nga tey bu ñu mm. waxee jihaatu nafs mm-hmm. mooy bi mujj. Mm. parce que mi ngi existé ba léegi nii koy wax. Mm. Mm. léegi comme nag euh, jihaad ci jaaseeg yooyu lan doon wax. Mm-hmm. te Maba Diakhou rocc na jaasi taal jihaad. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu moo tax ma ma ma ma tëb ab aspect bi. pour ñu mujjee ko ñëw ci moom. parce que boo dëggalee bu nafs rek. da ngay daal di dootoo mën a dugg ci bosam. <laughs> waaw léegi moom moom moom moom Maba Diakhou la eh, ñu leeraloon diini. ne nu awwalu haadal amr nubuwa wa rahma. أول هذا الأمر نبوة ورحمة لجيتو تي مير ما مير مي موي الإسلام بي نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة موي خلافة خلفاء الراشدون ثم يكون ملكا ورحمة موي غناو آه، آه، آه، سيدنا معاوية سيدنا معاوية نيو ثم إمارة ثم يكون ملكا ثم يكون ملكا ورحمة ثم يكون إمارة ملك ورفع عليكم ثم يتكادمون تكادم الحمي حمر فعليكم بالجهاد فإن أفضل الجهاد الرباط فإن أفضل رباطكم العسقلان يعني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دم يخوني نجل بين دين بي نبوة الرحمة لا تطلب موي خلافة الرحمة موي خلافة خلافة الراشدين لا تطلب ملكا ورحمة موي جناوي سيدنا معاوية ثم تطلب إمارة علي فالبل أكبل أك نغور أك رحمة مو فنك waaye nag su moyata kaada muun a gannaaw loolu ngeen di mattante alkaam di mm-hmm. maam yi maam bi maam xumar mm-hmm. di maam yi daw di mattante noonu mm-hmm, ngeen di jologante ci ci ki mattante ah, takaadumal xumar comme waaw bu demee bu ngeen toll foofu nga xam ni dem ngeen ba daanaka ku ne yeeneen sànnante baat ku nekk di lor sa moroom mun a fa aleykum mooy fi ñu toll jëm nañ ba toll jëm jamono joo xam ni dam nañ ba ngeen i yéen i moyata kaada muun a eh, takaadumal xumar fa aleykum bil jihaad mu ne leen bu baax maa leen dénk jihaad moom fa inna afdala jihaatukum ar ribaat mu a jihaad bi gën ci yoon mooy ribaat ribaat mooy faandu comme ñu gis tey Palestine yi fa ñu taxaw di di di taxaw gars yi di xaar di kar gars yi ñun ko al musadduun ay musadduuna la di kar gars yi di leen baare di leen di leen di leen défendre pour ñu bañ a dal ci biir askan bi loolu mooy loolu mooy ribaat mooy dogaale dogaale lu fekk pàkk bu gën a bu gën a bu gën a. stratégie mhm. gën ko laaj nga taxaw foofu. loolu mhm. mooy loolu loolu mooy. loolu mhm. loolu mooy ribaat. mu fa fa inna ribaatukum al askalaan askalaan léegi bi ñu wax nii mooy kaz. parce que yi ngay gis tey tey nga xam ne tey gaa yaa ngi songu Palestine mm-hmm. di dal seen kaw mm-hmm. loolu bu fekkoon tey jigéen di diina ji mm-hmm. nekk na benn kalimat waxda nekk benn nizaam bu nosewu am seen i seen i seen i seen i daa tax du ñu xalaata fekk ay julli di leen taal di lal seen taal seen jàkk kon ko ñeme ko yonent bi aleyhi salaam joxoon boo xam ni bu ñu tolloo fii lay suñu mbir Mm-hmm. lay sa lay mën a dimbal la ñu mën a la a dimbale mu ñu am suñ liberté am suñ doole mm-hmm. ba kenn du ñu ñemee dal neen la la lu ñu dénkoon mooy mooy mooy jaat mm-hmm. li jaat mooy ribaat ribaat bi li mooy askalaan te daan toll foofu moo tax moo tax loolu moo waral jàmbaar ji nga tudd mhm. tafsir Maba Jaxu Ba mhm. bokk ci minal a rijalin sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man hada nahba wa minhum man yantazaru ma badal ma badullah tabdila ah, moom bokk ci góor yàlla yi nga xam ne la ñu wóllërante ak seen borom ñu ngi ko sàmm mhm. ba leen yàlla waxee yow ma alastu bi rabbikum kóllëre googu bi ñëwee moom lan sàmm muy doomuy sénégalais di doomu saa fuuta ak saalum yàlla baaxe ko ci gàttal ci histoire comme temps bi guddul li tax ah. li gën a am solo mu ci ci ci jihaad yi ah. tëbul tëb tëbul tëb da tëbul tëb taal jihaad mhm. bi muy taal jaat en mille en mille huit cent cinquante neuf mhm. ci la buur Saalum fekk buur ndanja gi mhm. ah ndanja gi mu taal mu dal ci kawam rey fa juróom-ñaar fukki kaan. juróoma soixante-dix kaan nga ko ab xam-xam yi jàng alxuraan moo ko. kaan mooy ñi jàng alxuraan ba mokkal ko bisu àjjuma lañ julli juma. Mhm. mu fekk leen fa taal leen si en mille huit cent cinq en mille huit cent en neuf. Mhm. mu dal seen kaw rey fa lu mat juróom ñaar fukki borom xam-xam yoo xam soixante yoo xam mhm. ay jullit yoo xam ñu ne ko jumaa jumaa ji di julli. ci la taxa doog jugoon nag borom xam-xamu saalim yëpp. dajaloo ni lii nag buñ ko seetaanee du jóg dund. bu demee ba ceddo ji. di taal. mu mel ni eh, la mu nga mu nga mu nga bawal mhm. mu nga nga kajoor mhm. di jaamaar du xeex ak tubaab yi nekk tubaab yi mhm. fii ci saalum buur saalum dal na suñu kaw ba rey fi ay nangam ci bu buur ay ay jullit bu ñu seetaanee li du dem ci lan dajaloo fal ko almaami tafsir maba jaxuba ci lañ ko fal en mille huit cent en mille huit cent cinquante neuf mu mu nekk mu nekk xam-xam mata na ko fitam matane ko mhm. askanam matane ko njàmbaar gi njàmbaar njàmbaar njàmbaatee njàmbaatee matane ko mhm. parce que baayam njóogu la tudd dëkk Fuuta mhm. dugg Saalum moom mu juddoo Saalum dëkk bi tawakaltu tawakaltu ci wattu ñoor ci ñooro euh, à part à part à part gannaaw gannaaw gannaaw kaw la yàlla yàlla dogal ko loolu lépp maanaam comme li ma doon wax léegi li taxoon loolu am mooy mooy défendre parce que ray nañ julli di ci li ma la li ma la wax ci ci boobu ci lim bu toll noonu ray leen massacre ci leen taxaw fal ko nag mu takk xare commencé jaamaarloo ak euh, ceddo si mm-hmm. nga xam ni ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñu attaqué diine yi di leen di leen rey mm-hmm. ci la ñëw ba 1846. Mm-hmm. mu dajanteeg si alxaaji omar al fuuti yi mi nga xam ne boobu moo nekk xalifatul alaayi fil ard nekk borom jamono di wër di gox ci gox yi di tasaare l'islam di di jihaad moom di jihaad Mm-hmm. ah di woo nit ñi ci kat leen dugal ci diine baatu laa ilaha illallah muhammadu mm-hmm. rasulullah mu damante mu dañante moom tabakato mm-hmm. eh, moom moom tafsir maba seeti seeti ko gisee. la mu la mu bëggoon ci moom. la mu bëggoon ci nit nit loo jàng jàng. nga da ngaa war a soxla ku la nit ku la dimbali. parce que nit nit a koy dimbali. yàlla du wàcc dina dimbali. loolu boo jeexaloon téere boo jeexaloon téere yëpp. pour nga dem mhm. nga tegu ci nga tegu nga tegu ci raay bi mhm. mooy fokk nga dajeeg nit mhm. ku la ku la tane ku la ëpp doole ku la mën ca yàlla loolu la ñuy tuddee eh, eh, daj ab am nit gu dajanteeg ab yonent loolu la ñuy tuddee ab nit ku dajanteeg saxaaba. ab mujaddid wala nit al mujaddid bu dajanteeg taabia wala taabia taabiin. Mm-hmm. Mm-hmm. wala nit ku dajeeg sëriñ wala nit ku nit dajal ak sëriñam. Mm-hmm. pour mu dimbale la tane la ci yàlla. nga gis muy muy wax ngay dégg. nga xam ne kii nit la ni man kon ndeke fi mu toll war naa fi mën a toll ma def effort pour yéeg. nit ngay dem muy def ngay gis nga xam ne kii nit la may nit. kon lim mën war naa ko mën a mën. loolu nit ko mën a defal boppam ba yàlla def loolu. nga xamne mom la soxla won ci nitu yàlla mu dajateeg sa alxaaji Omar ci benn bis mu may ko werd def mu xaddamal ko lijazal ko def ko khalifa samp ko bayiko salum mu mottali foofu mu mu tok salum di di di xare di woote lislaam jullit yëpp fekk ci ko nak mag mag ñëpp fekk ci ko mag ñëpp bo demé ñora ta ap na ta jangale ko alquran la won moom tafsir ma ba mo lo indi batu tafsir tafsir sa lo lo indi batu tafsir parce que tafsir ku jàngul alquran mhm. ba ñu tafsiral la ba firi ko ba mu ko ba pare nga nekk taf nga nekk tafsir nga ngay firi alquran kenn du la ko mhm. tuddee te jamono jooju mhm. te jamono jooju boo boo ko la léegi jamono léegi moo solee dara ñu ne oustaz <laughs> boo solee ma xam ne fekk na boo demee sax ba yaa daa xamee li ma fekk maratib voilà waaye jamono jooju bu ñu tuddee la almaami tuddee la almaami te almaami mooy buur. almaami mooy imaam. mooy imaam ah almaami mooy imaam. ci pulaar ci pulaar. est-ce que <laughs> donte doon baat bi na am na ci arab donte am na ci arab téere yi. am na parce que imaam. am na foofu la baax am na waaye gën naa kawe imaam noonu. Mhm. gën naa kawe parce que kooku bu baax yaa yaa yaa yilif imaam yi. parce que ah. yaa yilif borom xam-xam yi yëpp ulama yi njiit yëpp. yaa nekk seen njiit yaa nekk seen njiit. kon mën nañ ko tuddee bu daan ci mufti. waaw mufti ba tey ba tey mufti ba tey mooy mooy mufti. Eh? grade boobu nag la ko yàlla la ko yàlla defaral. ndeysaan ci dund boo xam dundul dundul dundul. dund boo xam ne ci 59 ans la dund. ah suñu ba jox 59 ans ci la ci la ci la dund. ci la réalisé ci la réalisé ak turam bi nga dégg yëpp ak jaat yi mu jaat. ndeysaan xoola benn jaat boo xam ne naa la ko cité muy Papaate ba jaan en 1867. le 30 novembre. 1867. Paate Badiane. Euh, le 30 novembre la woon. le 30 novembre anniversaire am yegsi na anniversaire am yegsi ñëw le 30 novembre incha allah mm. lan nga defal ñaan defal ko ziar foofu ñaanal ko ñaanal soodaa tëdd foofu mm. parce foofu Sénégal yi foofu foofu ban dëkk la mu nga mu nga mu nga mu ngi euh, Paskoto Paskoto après Dingiraay jëm Nioro boo jëm Nioro ah. bala ngaa yegg Nioro ba Nioro mooy après Kaolack ñëw ab ñëpp après Kaolack jël boo ñëwee Kaolack tout droit. Hmm. bàyyi yoonu Gambie bi jël ñoo rek jël mel ku jëm parce que Ayib. est bala ngaa yegg. bala ngaa yegg foofu am na ñu faata ba jaan dingiraay. Hmm. moo rombee dingiraay. Hmm. moom ba kër kër kër Souley Ndiaye am ñu paate ba jaan. la ak bi. mu bi ak bi ba nangu seen kono. duma bi ba nangu nangu kono yi boo demee ñooro te moom jaasi la doon xeexe jaasi doon xeexe dajeeg borom kono bi duma ko mën a ñëw teg borom kono yi tubaab yor kono te ñoom mm-hmm. arme bi baax ci ñoom ci mooy jiyaat nga xam mooy mooy jaasi jaasi waaw ak xeej nga xam ne mag ñi moo xam mag ñi kenn ñoom mm-hmm. ñoom mag ñi oh. ay aussi wala ay mbëq tubaab yi parce que boobu fekkee ne tubaab yi li leen gënoon a metti mooy lajjoor comme daan na jaamoor la ak ñoom mm-hmm. mujj gi mu dem fekk tafsiin ma ba ànd ak moom ci jihaad ji tafsir moo fat ko. kon euh, Lat Joor ak tafsir ma ba ànd na. ànd na daje na tafsir ma moom moo ko moo ko mujjee. mooy sëriñam moo ko mujj moo ko wat moo ko tuubal dugal ko ci lislaam. est-ce que dugal ko ci lislaam defar ko. Ah. tafsir ma ba waaw na ko ñor. ak ak ñeneen ñeneen lu ma mhm. mille famille mhm. mille famille yoo xam ne compté nañ ko ci histoire tafsir ma fat na leen ci biir ñooro mhm. googu tey di di leen kii di di noonu ci ñooro ñi ànd ak moom ci jaar ji jàppale ak tuubal leen ñi ñëw indaale seen diine indaale seen xam-xam di boroomi xam-xam di boroom di ay kilifa di ay mag ñëw fekk ko jàppale ko jaar ji xam ni kii yàlla moo ko tax a jug mu woote ci jiyaat ñu ànd ak ñoom jàppale ko xare boobu mhm. nee nañ bu ñu yàlla mayee quatre-vingt-quinze pour cent musulman mhm. gannaaw yàlla xare bi xare xare Pape Badiane ma ko tax tàcc ba le 30 novembre mhm. que mag ñi taxawal diine ba diine ñëpp ñu ngi fa woon maam yaa ngi fa woon ñëpp mu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mag ñëpp ca xare a ngi fa woon. est-ce que waaw maam maam ngañ maam xëri ngañ mi jur maam Alhaji Abdou Aziz. mu ngi tëdd ñoor ci xare boobu la des. ma Matar Pend bu siin mu ngi fa woon hmm? waaw moom ama bu xuja xuja Camara fa woon doom doom mam ma ma ñu bëri ñu bëri ñoo xam ne joo ci diina ji maam maam maam Mor Anta Sali mhm. mu ngi woon ci xare boobu maam Ablaye baayam bàyyi maam Ablaye Niass waaw maam Ablaye yëpp ñu ngi woon ci xare boobu maam Ablaye dix ans la am ànd ak baayam ñu nekk ci xare boobu te mag ñooñu am na ñu fa des am na ñu des ci xare bi am na ci xare bi hmm? am na ñu des ci xare bi moom naa la naa la maam Safiyatu Ñaŋ baayam mu faatu foofu ñu goonee dan la dan la woon bam ma wax ci ñooro mm-hmm. mm-hmm. bàmmeelam fi mu fa mu ci des dafa fekk woon tafsir wa ci xale yi mag ñëpp foo ko tuddee rek mag ñëpp ñu ñoo ko daloon topp ko ànd moom go gannaaw bam bam ba mu daanu siin. Mhm. ku nek doog a dem tal sa tal ba senegal am fi motax ñu wax ni. Mhm. xare bobu koro bu tuwa bi gagné won 95% mhm. vingt musulman yi ñu am ci diiné duñ ko am parce que bobu mag ñi xam ñu xam ñoo fi taxawal diine ñi ma fi lim ñi. ñoo ñoo fi taxawal diiné wa mais ñoo fi ŋànk diiné ji. mais imam 80 pour 95% vingt quinze musulman yooyu. est-ce que euh, jarul seetaat. parce que ku xam lan moy musulman. moy mooy mu'min muslih yuslih saalih yooyu nga xam ni tey suñuy wax baatu jullit diwkat jullit la mu mel ni dafa am lu koy ŋànk mooy gannaaw su xeexee bakkanam gannaaw bu xeexu jaas yi wàccee ba mu janoo bakkanam am fu mu jaar ak moom ba génne jëkk bakkanam ci xataaya yu bari soog a ñëw nekk jullit لي القران لا تدخلوا ينتبي يعني صلى الله عليه وسلم وكو حديث لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا ني دم با جوليت ньоญو تاي 95% يوي غي واخ مو دم با تاي كين كو ني من نجو مرام من نكو توج من نكو يقال من نكو خيخ ها من نكو من نكو من نكو اسكو لولو waaw euh, xam nga xam nga xam nga foofu mhm. foofu sharia moo koy atte ak ak l'islam mhm. yàlla suñu borom moo koy atte mhm. mais al al islam waaye dina am mawisa boo xam ne mooy jiitu atte mooy jiitu mooy jiitu loolu boobu lan lay laaj waaw boobu boobu moo tax loolu moo teqale bayna al muslim wal mu'min wal mu'min parce que mooy man salima waaw mal faq mooy ki man aslamu ma maanaam man asla ki jébbalu ki ñëw dugg mhm. ne ashadu an laa ilaha illallah kooku ñëwatoo ko wax doo lis du lislaam dëgg la ndax yegg na ci cadre mu'min nag mhm. loolu loolu lay àtte te loolu moom moom la moom la moom la mu jug jamono mhm. bu yent yàlla Isa ñëwee imam Mahdi ànd ak imam Mahdi loolu lay réglé ëllëg loolu lay réglé loolu lay réglé loolu lay réglé ji parce que ñëwagul dana ñëw bu ñëwee dana da day ku mu dajanteel ñu hmm? ku dajanteel ci ci ci ci sa xar kamu ci ci jëbi mm-hmm. dana dana jëflanteeg yow na mu jëflanteeg yow nga bind boo bu dee jullit nga mu xam Mm-hmm. bu dee naafeex nga bu dee bu dee julli nga mu bàyyi la nga dem mm-hmm. bu dee naafeex nga mu rey la mm-hmm. bu dee bu dee yéefeer nga mu rey la loolu nag loolu nag loolu mahdi moo koy réglé mahdi moo koy moo koy après mujj jamono ak ñoom mais mais ala kulli xaal réew mi <laughs> mais mais alaamaat yi waxoon ni mooy jot moom mu ñëw waaw xam nga faqdul alaamaat mënta mënta mënta ma ñàkk alaama ngi ay mandarga mënul mënul mënul mënul perteloo objectif maanaam ñun ñu ñàkk appliquer l'islam mënu ñoo mënu ñàkk appliquer l'islam ni lislaam bëggee hmm. mënuñoo mënuñoo génnee am na foo xam mënuñoo génnee ci daayirati lislaam hmm. parce que réew mi itam ak lu loolu ma alaama lu manqué manqué lu manqué manqué hmm. natt fi quatre-vingt-quinze pour cent musulman ci réew Sénégal bi nga xam ne ci bu lislaam bi wootee ni ngay gis ni ñu ñu ñu woote loolu moom natt nañ ko donte faiblesse am na boo xam ni ci ni ko waxee ci mhm. jëfe bi mhm. sàmm bi sàmmonte ko ni ko lislaam waxee mhm. ah, loolu nag moom mun mënu ta ñàkk ci yonent bi alayhi salaatu biir njabootam amoon na lii am laa mën ta ñàkk fu ma nga xam ni julli bi loolu nag ci lañ étape bi julli bi toll ci lay toll di jaamu yàlla di bàyyi li bon di déglu waaraate di jàjju ñu koy jàngal di ko waar mu dem ba mujj di yéeg par étape par étape di di di dépassé dugg ci iman dugg ci ihsaan ci noonu ci lay demee mm-hmm. mais quatre-vingt-cinq pour cent mais musulman moom boo xoolee mag ñi mag ñi samp mm-hmm. boo fi liggéey boo xoolee seen liggéey mm-hmm. dëgg dëgg am na am na wér na moom sax sax sax boo xam ne donte donte donte kii bi donte kii bi xaw naa def waaye tafsir ma ba ci foofu ma ma ma ma yeggali foofu loolu mooy li ma doon wax léegi loolu bokk na ci li ko taxoon na li li li ko taxoon na li ko taxoon li ko taxoon jug eh, nekk ci nekk ci njabootam nekk a diggante Sénégal ak Gambie waaw parce que taawam Ah. te moom après après après baayam bi Tafsir ba daanoo somb siin. ah mais Tafsir ba jaxu hmm? kon dafa xare ba daanu ci xare. dafa daanu ci xare. allahu akbar dafa xare ba daanu martyr nekk bi mu jigee bi mu jugee Saalum. Mhm. songu dugg siin. Hmm. dugg siin Saalum ba mu ba mu juddoo hmm. foofu. jaar Saalum topp dugub bi got a giir gànjaay takk xare fu mu fekk fu rom fu mu fekk ay jullit ashadu an laa ilaha illallah wa rasulullah tuuba leen ànd ak ñoom bu tuumu xeex ak ñoom dugal leen ci lislaam ba dugg ba dugg siin ba installé siin dugg fa di jaamaarloo ak dare ak buur siin mhm. ci la da ci ci la ci la ci la dajeeg ñoom ba yàlla daf mu tëdd foofu si siin te moom te moom loolu moo nekkoon objectif moo nekkoon bë moo nekkoon bëgg-bëggam mhm. mooy mu ñaan yàlla daan ñaan yàlla dee ci xare bi dee ci xare bi parce solution bi xamoon na ne yàlla ndigal ndigal ndigal li war a bàyyi koo siin moom moo ko mooy ki xam moo ko war a moo ko moo ko war a lijjanti moo koy solutionné moo ko moo koy solutionné mais xam na ni deretam foog deretam tuur loolu doo ko mën a am moo tax bu muy déparé Saalim du ñëw mhm. nga xam ni jaar di dafa amoon ay ñoo xam ne ñooy nekk ci biit am ñu nekk ci biir mhm. am ñoo xam ne ay sëriñ lañ ñooy yor kurus yi ñi ñooy ñaan ñi ñooy yor daara ji di mhm. jàngale ñi ñooy def ñooy def xalawaat yi ñooy def listixaar yi ba leen yàlla woon ba pare ñëw wax ko ne ko ah ñu lii leen gis lii ak laa Hmm. Hmm? rakam xool na ko ba gis ko ne ko waat li ma gis boo demee si ndoo dolli si mun a mun a mun mun mun munu maa ñàkk dem kuy xeexal lislaam doo ragal danaa dem bu ma fa tëddee hmm. bu ma fa tëddee bu ñu yàlla doyee sama deret tuuru fa mhm. ñax bu fa sax mhm. ñax bi mhm. jur ko lekk lekk ci yàpp wala nga naan ci soom di nga wax ashhadu an laa ilaha illallah laa ilaha tey boo demee siin tey boo demee siin bu na na ñu ànd seen maam yi àndoon ak ñoom tey ñooñu tey ñoo fa nekk ay imaam allahu akbar di noddu jàkka yi di noddu di julli yemute di wasifa di xadara di def lépp ngir loolu te te ngir ngir ngir ngir tëddaayam boobu te loolu loolu loolu loolu loolu loolu la ñaanoon yàlla mhm. muy nekk muy nekk moo tax moo tax mu nekk jëmm ju Sénégal jarab boo jar na bàyyi xel ñëpp toogaay fi nekk ndigalu Seex Alxaaji Omar Fouti parce que mhm. ne laal bi ndeyante woon tabakoto foofu lañ tolloon mhm. may ko wedd jox ko samp ko muy xalifa bàyyi ko Saalum ah dem waalo moom Seex Alxaaji Omar fekk fa maam Alpha ndijaayu Seex Alxaaji Malick bàyyi ko waalo sant ko parce que maam Alpha tey moom ci jiyaat na ndijaayu Seex Alxaaji Malick est-ce que moo mottali jaatu si El Hadj Omar ci Waalo tafsir ma ba mottali liggéeyu si El Hadj Omar ci Saalum mm-hmm. waaw moo mottali liggéeyam Saalum doole jooj la ko yàlla mayoon mm-hmm. ak ak euh, taal jiyaan xam ni mm-hmm. euh, bu seetaanoon loolu te loolu te loolu à l'âge à l'âge yàlla li yàlla mais à l'âge avant muy kàllaf di am fukki at la commencé reverté reverté moom di kaas parce que boobu ay baayam waaw si moom tax ba fukki at ay baayam di làqatu julli la daloon la daloon islam bi jiitu. monsieur na Omar ne xanaa newuñ ci dëgg. ndeysaan ah. wala nabi azina baari bi naas bi noonu bala kii. classe bi seen xaaj ma jàngale ko. monsieur na Omar. ne digal ni Bilaal ne ko noddal. xanaa newuñ ci dëgg. loolu lépp nag. li ko li ko li ko waraloon ba mu en boobu muy gis baayam yi làqatu julli ci la leen ah. Mm. xanaa ñu ñëwuñ ci dëgg ñu ne ko ankay ah, mu ne leen xatoon ñu làqatu ci julli ay baayam jël ko rawale ko yóbbu ko kajoor mm-hmm. mu dem jàngi foofu jàngale foofu ci langoor ñu xam ne gune gi ko ko jàppale jàppale woon kii ba nee na ba baayam gaañu nag ba mat mm-hmm. ay rakam jël siwaat ko ne ko ñëw daara ji mu toog ñoora googu li yoon objectif bi mooy yor daara yor daara baayam mm-hmm. yor fa di jàngale à l'âge de 32 ans Hmm? ama transa di jàngale alquran hmm. di jàngale xam-xam hmm. nekk aalim nekk borom xam-xam di jàngale lii ñu lor jullit yi ci nañu di am ci buur bu ñu bu ñu rey soixante-dix personnes moo tax mu jug taxaw ne ah jug jot na nag te boobu borom xam-xam yëpp ñoo ànd ak moom àndu ne moom xam-xamam mate na ko fitam mate na ko askanam mate na nañ ko samp ñu samp ko mu jiite diina ji di jeexe di xeex a parce que xam na ni eh, toolu l'islam li koy roose deret parce que jaamaarloo xam ma ki mm. fekk ay nit mm-hmm. ku yàq-yàq woo xam ne fekk ay nit ñu mm-hmm. julli ajjuma mm-hmm. nga dal seen kaw rey leen ci ay ay jullit man juróom ban ban ban ñaar fukki nit kooku yàqu-yàq koo xam ne euh, kooku rey rek rey rek xeex ak moom rek mooy moom jàmmaar ak moom rek mooy li li li li xew ah eh? comme ni ko comme comme ni ñu ko waxee. Eh? ah yàlla eh, yàlla yàlla yàlla dogal na lam bëggoon moom réussir na. ndeysaan moom loolu la bëggoon. Mhm. ci histoire li ñu nettali moo daan ñaan yàlla mooy des ci xare bi. des ci xare bi moom moom tafsir ma mhm. ba jox. dee la tëddee ba noonu la tëddee somb. Mhm. tëdd si suuf sa siin. fële noonu la fa tëddee xabru baa ngi foofu ni ñaan ñu fa di ko defal ay. jaar xabru foofu siin mi jaxaw booy booy boo rombee jaxaw jëm. jëm caare mhm. côté diggéel boobu foofu la foofu la xabru bi nekk foofu laaj ci foofu rek daan la woon fan la xabru bi nekk dañ ko fay defal ay ziar mhm. ana bu jot mhm. nit ñaa ngi fay dem di fa ziar bërëb bu yàlla la bërëb bu bërëb bu ñaanu kaayu yàlla la bërëb bu yaakaaroo la bërëb bu ay nit ay mag ñu sell ñu baax ñu seede ni fii mbir a ngi fi ñu tëddaayam boobu parce que ñoom ay humul soo adaawum dammahumul xabru dañoo seen dañoo seen bàmmeel dañoo faatu rek ak bàmmeel bi mais dëgg-dëgg xaqiqatan ñoom ñoom ñu ngi dund parce que alquran moom moo ñu jàngal ñi ñi nga xam ne bu leen njorti ne wala taxsibanna alladina qutilu fi sabal amwaat bal axyaau inda rabbihim yursaqun بولن جرتني نيا خمني نودن نودن خير في سبيل الله تيون يلا لو بكون تيجي لي يبغوا يندوا تيجي لي الجات نو نو دون دون ده مك بل أحياء عند ربهم يقول دون سين برام يبغون في يال دين دين دين دين دون يلا واحد بنا بل أحياء ولكن لا تشعرون نو نقول دون دون قام ين ينك حمود بس كنوم دون فاتو مسنو نك دين دي كونكتو أكسين برام سبحانه وتعالى بحتى بندانو دون سخلنو دون لنسانغ duñ soxla sàng duñ soxla julé dañ lañ ñu taxañ ak seen yére seen suwa daw ak seen dam deret yu deret yu deret yu deret yu yu laab yooyu nga xam leer yooyu moo tasaaroo bu ko ashadu an laa ilaaha illallah loolu moo la xëcc donte gisoo fekk woo seen jamono mais loolu bokk na ci leen objectif ba nga dugg ci biir l'islam yàlla defal la jërëjëf la yàlla defal Ba wax yàlla allah waxtaan wi am na solo leer na ak Cheikh Hadj Malick ndaw Cheikh Hadj Malick yan kàddu ngay tëjee daanaka waxtu bi mi ngi ñuy dab. waaw xanaa sant yàlla lu ñuy tëjee. Mhm. waaye bu baax. xam ne fa lañ jógee ko muy Kër Mbaye Fall. Kër Mbaye Fall di jiital suñu nuyoo bi suñu waajur. baax ziar ko. est que waxtu xam naa mu nga toog di seetaan. ndeysaan. waa kër gi yëpp. Mm-hmm. ak waa Daara ja ñoom it xam naa. tey jànguñu waaye ñu nga toog di seetaan. wallaay ndeysaan ñu ngi leen ziar di seetaan seen sëriñ. waaw gis nga seen taal seen mbokku taal waaye di nuyu bu baax xalifa Baye Mor Tall Ndaw. Mm-hmm. mooy sama waajur. Mm-hmm. taawam bi mu fi bàyyi di Serigne Abdou Ndaw. ak rakkam yëpp Cheikh Tidiane. ak El Hadj Babou. ak ñoom Moussa Aliou Mouhamed ñëpp ñu ngi leen. Dia Seynou Boog Ndeye Fatou ñoom ñëpp ñu nuyu leen mhm. waaye tamit sunu soxna yi nga xamante ni ñoo nekk kër ga di sunu ay soxna yu mag ñoom ñëpp ñu ngay seetaan waxtu yi xam naa ni mhm. waaye nuyu tamit bu baax sunu soxna bopp première mhm. dame soxna Amina ñu nuyu ko ziar ko ak daayira yi nga xam ni waxtu bi dañ ko yéex a yéeg waaye xam naa ñoom ñëpp ñu ngay seetaan jiital si daayira mu taxabina fillaahi ak daayira sopp na bi xayri wal baraka ak ne alal birri mhm. waxtu wi xam naa ñoom ñëpp ñu ngi seetaan seen ay tele di kontaan di bég bu baax ci mhm. loolu nuyu benn soppe bu baax bu ñuy wax soxna Anta Samb moom it ñu nuyu ko. Mhm. ziar ko waaye sant bu baax ki doon def waxtaan mi ndax sunu sëriñ la. waaw sunu sëriñ la bëri na téere yu ñu topp moom ñu si dimbali. mu doon ku jàmbaare ku mhm. baax. Mhm. man yëguma ko sax démb si guddi la moo woo rek. ne ma ah dama bëggoon nga gunge ma. moo andi loolu xam naa moo tax ñi ko yéex a yëg. yéex yéex koo yëg dañu mujj si téléphone yi jaar rek ne ko. nuyu tamit sama benn yaay bu nekk fële Kër Massar ñu wax Aminta jak. Ah, moom tamit suñu soppee la ak soxna Nogay ak ñi nga xamante ni ñu ngi parcelle ñëpp duñu seetaan mhm. ak waa Kër Mbay Fall ñoom amuñu seen fay waaye nuyu bu baax sunu mbokku taalibe yi ñu àndal mm-hmm. Seyna Omar Ndiaye ak uh, Mohamed Gueye mm-hmm. nga xam ne ñoom ñu gis gis ñu si seen ginnaaw mm-hmm. ñu ngi kontaan bu baax démb lañ ko wax si guddi gi ñoom ci fajar gi ñu yëkkati ñu dem waaye sant bu baax nag sama benn doom la ci man ñu koy wax Babacar nga xam ne ñu ngi koy ñaanal bu baax maa ngi koy wax Oustaz mu ñaanal ko nga xam ni moom buñ jógee rek day bàyyi léppam démb lañ ko ko wax mu àndi ah, oto wallaahi mu ngi noonu taal oto bi andi ñu ba fii fii nañu bu jeexee maa ngi leen di jël siwaat kooku bëgg nañ nga defal ko ñaan bu baax inshallah yow nag ñu nuyu la ziar la ndax sama toomaa nga ñu bokk maam alaaji Maalik waaye tamit nga doon suñu soppee mhm. ñu di lay topp lu lu bari bari yoon waaye daal sant nañ waa kër Baye Mor Tall yëpp mhm. daara alxaaji Mor Tall ak nguy juru ndongo yi ñoom ñu si ëpp ñu ngay seetaan mhm. ak waa kër Mbay Fall yëpp xam naa bu ñu limee mën nañoo fàtte wala ñu am ñuñ ci waaye daal képp koo xamante ni soppe nga sopp dafa bari lool lool lool lool moo tax duñ mën a tudd ñëpp ak sama goro yi tamit nga baal ma ma sant leen <laughs> waa doomu bàyyi Abdourahmane ndax ba lañ sant ñoo ah. ngay ndéggee rek xam naa waxtu yi xam naa ñoom it ñoo nga toog di seetaan waaye daal bégg nañ ñëpp kontaan ci ñëpp ku ñu fàtte rek nga nga jéggal ñu ko waaye daal bëgg nañ ci ñëpp daal yàlla yàlla fa yow yàlla may la wér ak gudd fan amiin amiin amiin bëgg naa ko tuuti ci moom waaw Euh, ñu ngi koy jégalu bu baax nga tàggoo waale waaw moom moom mm-hmm. ci boppam tàggatoo waale moom mm-hmm. ñu ngi koy nuyu di ko sant ni ñu ko gisee nii mm-hmm. jànkale mi sëñ daara la mu ngay toog ci daara ja di jàngal alxuraan moo tax muy sama waay est-ce que bëgg téere lool di jàng nga gisee nii tey jàng na téere ba mu ngi jàng xale yi ndeysaan macha allah ñoom ñoo koy toppandoo di di ci nab na bi rek aywa aywa bëgg xam-xam lool bëgg téere yi jàng alaay eh, topp àlluwam fonk ko fonk daara ji ndeysaan yor daara bàyyi moo taal ndax nga xam ne moom mooy suñu bàyyi foofu ci hmm. ñoom sam-sam lañ dëkkoon caaroy hmm. waaye toxu moo leen jàpp yóbbu leen kër ma kër mbay faal mais foofu ko ñoo bokkoon dëkk foofu ci ca sa caare satam hmm. bàyyam nekkoon suñu bàyyi nekkoon suñu wëllëra bàyyi ñoom ñaar ñu bokkoon daayira nekkoon wëllëre àndandoo bokk lépp ñoom it bàyyam nekkoon fa ñoo xam nekk ñu dimbale ñun usage yi ndaw yi nekkoon foofu foofu yëpp ku ñu dimbale la ku ñu daan jàppale la di ñu encouragé ci lii ci diine ji waaye di ñu encouragé ci diine ji jàppale mm-hmm. ci jumaa yeeg ci jot day ñëw indi téere bi jàng si bi muy jàng si fekk na boobu maa jokkoo yow mu yegsi ci la affaire yi ma damaa war a gunge <laughs> ñu ànd dem ci émission ba nii la affaire bi ñii la affaire bi mooy boo ko yóbbee ci seen xaj. waaw waaw waaw damaa ko damay bàyyi ba kii bi ma kàddu sama téere ñëw. macha allah loolu laa programme mais far yàlla yem yem ci si bi ñuy programme maa yow. mu neexal ko xalifa bi Serigne Babacar Ba Ndiogu. nga xam ne ñu turandoo Serigne Babacar Sy la ñu bàyyi maam ma bàyyi nga xam ne mooy porte-parole bi ak mbooleem xalif nga xam ne mbooleem famille bi nga xam ni ñoo nekk ci famille ak ñu jaar fi ñu ko nuyoo ñëpp mhm. fi famille yi Tafsir Maba Jaxu nekk ci Sénégal ak Gambie mhm. ñu leen ci di ci woo nit ñi mhm. di di xam ni jàmbaarangoof doo xam du dara xam doo xam ni du bàyyu kenn mais bàyyu diine la bàyyu l'islam la mu taxaw fa fa taxaw jotee fa taxaw fa taxaw méttee lool ci lu jamono bu yàggul ay jamono ay mille huit cent yooyu nga taxaw jàddu jaas yi di xeex bàyyi sa njaboot pour l'islam taxaw ba tëdd ci loolu sa njaboot nekk ci ba faatu dugg ci loolu loolu loolu nekk na ko jar a xam bëri bi bëri bi mu nekk bëri bi jar naa xam jar naa gëstu rawatina Pathé Badiane bi wax ne 1860 1800 1967. jërëjëf novembre loolu loolu am na solo lool am na solo parce <laughs> foo xare boo xam ne xare nga ban ba gañe ci tubaab yi nangu seen i kënoo nangu seen i jaasi téye ko. Ah? ci jaamaar la ak ñoom yor ay jaasi ak ay loo xam a bàyyi xel la. dëgg la lu rëy la ñëpp dañu bàyyi loo bëggoon nga sax lu gën a yaatu nii waaye gis nga lim gën a yaatu nii xam ne si beneen. lu ko gën a mottali woo ñëpp leen ñaanal di leen jéggalu mhm. ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla yàlla nangu mhm. na yàlla yëkkati place bi jotaay bi yàlla na ko yàlla nangu def ko mu jotaayu xam-xam nangu ñu ko fëlal ñu ko jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah aywa waaleykum salaam wa rahmatullahi تعالى وبركاته بقي مي نونو الاصلاح موم آه، وقتو نيك مو اندي لين ньо خامني جاب ناني دي نان لين يوكو يوكو نو ايتام نيت ني في نيكون گرم سي بو باخ نك الحاجي Eh, imam Biram Pouy imam Biram Pouy. moom mi nga xam ne sax man mi maa ngi koy gërëm <laughs> sama ñëw fii gërëmoon ma <laughs> ak tam euh, le directeur Alsane Samba bu tam. Mm. ñu gërëm ko ñoom ñoo coordonné daanaka bi lay jotaay. Mm. waaye itam gërëm bu baax Alhaji Boubacar Diallo. Mm. ci liggéey bu rafet bi Antoine ak. El Hadji Ngañ ak ñi nekk ci kër gi yëpp monsieur Ndiaye fàtte wuñu kenn mbokk yi jaajëfal bu baax nag di ñaanal itam sëñ Moustapha Nabiyee Nabiyee boobu nekk ci Tiwaawan nga xam ni murit la waaye kër Cheikh El Hadji Malick jëppi wuñu ko ndax jikkoom ak nekkinam bisam bi di la quinze décembre moom tam inchaa allahu ñëpp a ngi koy waaj Moustapha Nabiyee maa ngi koy ziyaara bu baax noonu itam ziyaara bu wér nag Euh, alxaaji Ablaye Ndiaye ngalgu mm. maa ngi koy ziyaara bu baax moom tam mm. ci jikkoom mm. ci yaram ci tegginam waaye ci baaxam ak ci mën dimbali képp kuy taalibe rek mi ngi góorgóorlu bu baax ci jàppale la ak kilifa yi nekk Tiwaawan yépp di ko félicité ci nam lu rëy li nga xam ne tam am na ko foofu ci Tiwaawan laarar wa nit ñi sa alal du leen yéem mm-hmm. waaye sa yar ak sa teggin mën na la yéege mm-hmm. fu nekk ci sa digg ak ñoom mm-hmm. rawatina nag alal ji ñëw yokk yar gi yokk teggin gi waaye yokk mbaax mi alxaaji Ablaye Ndiaye ngalgu ci Tiwaawan ñu ngi koy ziyaara di ko ñaanal yàlla euh, gudd fan ak weer noonu itam sama xalifa baay man tam alxaaji Pambay foofu ci Tiwaawan maa ngi koy ñaanal yàlla moom moo jaar fii ci atelier bu mag bilee fii Tivaouane Couture ah di ci defal gor ñëpp ñaw yu ama ama am solo Mouhamad mbay taxawee atelier bi itam maa ngi koy ziyaara bu baax di ko ndokkeel ñëpp ngi may message di ma laaj li nga sol sëriñ bi lan la waaye bi moom sama xalifa baay moo fi jaar maa ngi koy ñaanal yàlla mu dëgëral ko sàmm ko mbokk yi ñaanal waa Rési yëpp yal na leen yàlla sàmm aar ci liggéey bu rafet bi dami ak Charles ak ñim ko àndal ñëpp mbokk yi xanaa mbokk yi xanaa jox leen dig daje incha allah vendredi bii di ñëw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen jotaay bi la di al islah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu